maa ngi maa ngi leen di nuyu turu sëriñ Abo sama wasila la si baatam laay waxee ak ci nga xam ne Cheikh Modou Bassir bu ma jëwuñu kër gi waaye nag bala ñu tàmbali di ko ñaan mu yàgg fi wér lool ak sëñ Tuubaa yëpp ak nu taalibe yëpp eh, di nuyu sama xarit Cheikh Modou Bassir moom Cheikh Abdoul Khadir li mu waxoon sëkk waaye xanaa day jot ay cant rek ak ay ngërëm ak ak déggaane rek waaye li mu waroon wax lépp wax na ko te dem ko waxee mënu mu ko waxee noona euh, maa ngi nuyu woon euh, ndawal président de la république le ministre Aly Ngouille ak ñi màndal ñëpp di leen jot suñu sant suñu cant yoo xam ne sant nañ ko président de la république ci màggal gi ci turu gouverneur de région Diourbel nga xam ne bi ñu defee CRD ba ma ànd ak sëñ Mourtala ak njaboot sëñ Fallou yëpp dem ci te tawaayu préfet ak sous-préfet ak autorité région bi yëpp loolee ñu sàkkuwaan ca biir màggal gi lépp euh, lépp matale na mën naa wax ne def nañ def nañ ko euh, noo xam ne fooguñu ko noonu fooguñu ko noona def nañ ko cent pour cent amul lañ dal lu daal ci ci mbiru màggal gi lépp sotti na kon nag na nga jotal suñu suñu cant ci monsieur le président de la république ne ko la ma wax ci màggal gi yëpp def na ko la ko war ci màggal gi yëpp def na ko itam maa ngi sant bu baax baax nag te te te te te te ñaan di ko dénk rek loo xam ne dama koy dama koy ko conseillé dañoo toll ci waajub nawet bi nekk te baykat yi ci woon nawet jiitu woon jiw bi lool ak la may àndal na ci bàyyi xel te ñu woyefal ko ba baykat mën see jote nun nag euh, Serigne Touba Khadim Moussa moo defar defaroon ba noppi ndax kat Cheikh Mouhamadoul Fadal mos naa wax sëñ Bara Diène ne ko euh, sunu waa jërëm li mbokk li mbokk ak nitu àdduna yii nitu ko àddina ba la takkalee ndomba saa boo xam ba ba nga ba ba nga xam da nga koy jër bëgg nee da koy da koy da koy yolomal ba mu ni pëndëng sëñ Tuubaa nag ku mu takkalu ndomba bu ko xoolee muy bu xaw a yolom bu xëy bu xëyee loolu sax mu moo ko waxoon moo ko waxoon sëñ Baara Jenn kon nag la ma koy la ma koy waxaat ci moo di mu mu mu gën a mu gën a jéggale te yër te yërëme sax mu dul faatal kat mos naa toog ca ma Madina bi nga xam moom sëñ Ebo mi fa la nekk ñu ñu ñu topp sàcc ba ak sàcc ba si ñu teg seen i jaay si yo yoroon bay sëñ bi ne lu mu doon ñu kii dafa dafa ñëwoon ca sunu ca ca sunu kër luubal fa sëñ bi wax leen ne lu mu lu mu fa jël mu fay ko ndax saa bët yi moo nanguwut gis ku ñu buggal kon nag waxal président nekk mu mu jéggale te jëllale nun nag sëñ Tuubaa fal na ba di ko sàbba sur waxee koo xam ne kii loo gën a doon mag sa teraanga nga gën a dolliku sëñ Tuubaa nu ko defal te ku dul ku dul falu sëñ Tuubaa ku ne loo gën a doon mag da ngay gën a màggat ba xëy dootu mën a dara boo dee seet dootu mën dara kon nag suñ ba fal na ba noppi noo dénk mu gën a mu gën a toppatoo euh, mbooloo Sénégal sénégalais yëpp ak sénégalaises yëpp rabatina nun baykat yi nag nawet baa ngi jub amuñu aw jiwu matériel am baykat yi amuñu ko na woyefal lépp ndax moom kat nit ku bari yërmande la waaye nag mbirum baykat yi ak nawet beeg li bu mu ci dusoo kenn. na ko na ko na ko def ci coobaral boppam def ci yërmande loolu noo ko noo ngi koy wax loolu noo ñaan nag suñu borom mi xam dara tëwu ko ci daraja Xaadimu Mustafaa mi suñu yaakaar tegal nag waaye bor borom bis bi nga xam ne suñu Tuubaa moo xam moo jóg boromam suñu borom may nu nawet bu baax bu teel te barkeel te ndox mi ñëw te bañ te bañ a lor asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu